jàkkaarloog sëñ Saliou di ko xool di ko ñaanal ci suñuy bëti xol sunu borom yàggal ko fi nga gis ko muy màggat lool nga koy ñaanal rek yàlla na yàlla na nga fi yàgg yàlla na nga fi yàgg ñëpp di ko wax ñun noonu la ñu mel ci suñu Mor Talla mii bis bu set rek ñu yaakaar ne ñaar fukki at ak juróom la am te yàlla na am fanweer yàlla na am juróom fukk kon yàlla na ko suñu borom yàggal mu ngi sant sëriñ Mor bu baax a baax di sant ñi nga xam ne ñoom la ko bokkal ñi bokkal dëkk bi nag bi yëkkati woon dëkk bi teg ko ci loxol suñu xaadim mu ànd ak ñun ci loolu ñu ànd liggéey bi kon cant googu moom it boo ko tegee ci loxoom mën naa saawaan jëm ci waa dëkk bi yëpp waaye waa dëkk bi bi sëriñ bi di sañc sëriñ mooy sëyim may di sanc dëkk bi dafa am ñu mu ko àndaloon ñoo xam ne dañu doon ay taalibeem nekkandoom ànd ak moom ñii yëkkati léegi sëriñ Thiam mi fi yëkkati ci ñooñu la bokk kon ñooñu it sëriñ bi nee na amoon na leen ak cant ak ngërëm foofu lay tàmbalee jëm ci dëkkandoo yi yu bari fekk na ma fi yu bari xam naa ko kon dëkkandoo yi dëkk yi ñu wër yëpp eh, suñ xaadim waroon na cee jaar wax jee eh, kàddu moo mel noonu rek léeg-léeg sa xel am lum mu fët waaye ñooñu ñëpp ci turam ak turu suñ naa ñu ngi leen sant bu baax a baax eh, sëriñ bi yëg na li ngeen fi def seetlu naa ni ren bi waa kokki di ñëw ci sama kër ak waa Kër Massar waa Kër waa Makka Sarr fekk na boobu kër gi set wicc nga xam ne am na ñeneen ñu leen fi jiitu kon dafa mel ni waxtu wu nekk kenn ku ci nekk rek day gën a yeesal sa pasteef ñi nga xam ne ñoom lañ dëkk rafetal lañ dëkk bi kon sëriñ bii mu ngi leen di sant bu baax a baax ñun nag ñu am kàddu cant gu ñu am suñu diggante ñun ak waa dëkk bi ak waa tund wi ngir jàppale gu ñu jàppale sunu kilifa gi nekk ci dëkk bi ndax jàppale googu kat dafay daf koy dimbali ci toog gi mu toog ci sàmmal ñu ndono li nga xam ne moom la sëriñ bi bàyyi kon ñun ñun ñoo ameel waa foofu waa fii yëpp ñi fi nekk ak ñi fi nekkul ñi seen xol nekk ak ñi ñi fi sori ñun ñun ñii di njaboot gi nga xam ne ñoo fi waroon a nekk nekk ay tànkam nekk loxoom ñun ñoo leen ameel cant googu kon ñu leen sant di leen gërëm kon mbokk yi mbokk yi mbokk yëpp ñi nga xam ni daal ay kilifa lañ ñëw fi sëriñ Ahmadul Muxtaar sëriñ bi bi bis bi Euh, jube ñu xalaat mu xalaat koo tuddee Serigne Modou Moustapha dem na ba ci moom yégal ko ko barki démb rek jot naa ko téléphone mu wax ni yaram wi du ko ko may waaye dina yable yabal na fi nag ndaw loo xam ni mat na ndaw sëkk muy Serigne Ousmane kon sëriñ bi ñu ngi lay masawu coono ndax barab bi sori na waaye barab bi nag ni ma ko waxee suñu am sa sànq ci bëcëg dafay barab boo xam ne ñun ñu gis leen fi sunu sag la ndax kat sëñ Moon Moustapha li muy ruqe ruqe at mu jot daw ko jëlal def demoon na bañ sampal ko fi kër kon loolu bu ñu demee ba ay sëtam dellu siwaat fii day nekk ak cant bu mag a mag ci ñun sëriñ aboo ngi nii toog sëriñ Abdou nga nële toog waaye xam nañ ni seen diggante diggante sëriñ Abdou Lahat ak Badar day diggante boo xam ni neexut a wax ci jotaay diggante bu xóot la ah, dafay amoon kër sax far benn goo xam ne daanaka waxtu nekk mu ñëw fi noonu ci Cheikh Mamadou Mourtala mii nga xam moo dend ak man di sëtub sëriñ Mourtala sëriñ Bas jur ko sëriñ sëriñ Baara doon wax léegi ay kàddu sëriñ Cheikh Kajoor yónnee na fi ndaw sëriñ bi yéeg na ko moo daan ñëwal boppam tey yaram bi mayu ko ko kon kaddu cant war naa dox diggante sëriñ bi ak moom. sëriñ Abibu ay yitteem kenn ku nekk xam nga ko ci ay tool la nekk yor yori donga ku yori donga nag xam nañ ni amul amulu jot te bu yónni woon suñ Baara doy na sëkk suñ Baara dong bu ko yebaloon fii. doy na sëkk mat na sëkk ndaw waaye at mu jot day ànd ak sëñ baara ànd ak sëñ Mamoor ànd ak sëñ Moustapha sëñ Mame Balla nga ne li toog ñun ñëpp di ay di kenn kenn ku mu ci yónni woon mu doy sëkk ñoom ñëpp mu ànd ak ñoom kon loolu yëg gu mu am ci barab bi la sëriñ bi mu ngi lay sant mu ngi lay sant ci loolu bu baax a baax képp koo xam ni mbokk nga mbokk googu nag yaatu na buñ ko tàmbalee sëñ Mayib am na ñu ñu ko bokkal ñu ngi fiy toog wane nañ seen yéene ci bis bi sëriñ bi yéeg na ko mbokk yëg na yëg nañ ko kon ñu ngi leen sant bu baax a baax seen na Ablaye Gueye léegi am na mbokk yoo xamante ne xëy na seetlu ma leen waaye wóor na ma ne ñu ngi ci jataay bi kon ñooñu sëriñ bi amal na leen ak njukkal suñuy nijaay ngi fi toog suñu Cheikh jóge Joor ak sëriñ ñooñu ñëpp ay wëllëre yu fi nekk sëriñ Jaxate waxtu wu nekk ñu miin ko ci barab bi euh, bokk ci barab bi la bokk ñoo ñoo bokk lépp kon ñii ñëpp kuy wax di tudd ay tur il nga juum waaye ñoom ñëpp kenn ku ci nekk sëriñ bi amee na la njukkal amee na la kàddu cant taalibe yi nag ni ma ko daan waxee rek sëriñ bi da leen di sant waaye da leen di ñaax lépp lu ngeen def tey na mel na ngeen ko fàtte te fu seeni def lu ëpp lool man nag ma am samay kàddu yu bopp yu ma ci bëgg a dugal jëmale ko ci taalibe yi dama bëgg taalibe bu ci yore yorati addiyam jëmale ko ci gàmm gi bu ñu xaarate ba toog ci baas bi di ko fi jox nañu àndandoo ak ñañ ko siqal ñu dem ba ci sëriñ bi jox ko ko fa mu nekk mu def ko ci gàmmu teel ko koo jox ca barab booba foofu moo gën a sell bu ko defee fii bu ñu fi ñëwee ay kàddu lañ fiy joxe kon loolu muy kàddu yoo xam ne maa koy sàkk bëgg naa it mur yi nañ daan jëf démb la fi xewoon rek mooy jagal mbir yi la jagaloon lu démb mooy jagal lu tay am murid day jébbalu ci karamu sëriñam la mu am lépp mu yëkkati jox ko te bañ caa ut xalaat li ngeen di indi jëmale ko ci kër sëriñ bi moom mii moo fi nekkal sëriñ bi man ne lu ma waay jox ni ma ci gàmmu gi la jëm moom ñi laa koy jox kon li ngeen am yéen jëmale ko ci sëriñ bi muy ay teraanga bu ngeen ko indee ci barab bi na ngeen ko yëkkati ba mu teg ci ay bëtam gis naa sëriñ Muntaxa ak jota dem li mu bari bari ay ndabi ndabi ndabi ñam yoo xam ni togg nañ ko ba nopp indi ko sëriñ Muntaxa jóge fa mu toog ñëw seet si ñam ya ngir teraanga la teraanga bët kon nag loolu maa ngi koy ñaax taalibe yi na ngeen ci bàyyi xel bu baax a baax li ngeen di indi mu jëm ci barab bi na ngeen di fexe ba mu teg ci bët bëtam la mu la ngeen lañ cay def mu wax leen ni nii la nii la war a deme loolu nag ni mu demee fii ci barab bi noonu la war a demee fële ca Touba lépp lu fi taalibe indi na ko ñëw yëkkati ko ci loxoom ni ko Serigne Cheikhouna lii mooy sunu addi yi ñu dajale jéemuñ ci ut xalaat bu leen ci jéemu ut xalaat waa Daaru Salaam dañ ñoo jàngal lii ab taalibe war a def digganteem ak sëriñam ci ak ci ak ci addiya boo yëkkatee sa addiya jox ko sëriñ danga koy booleeg almet nu mu lu ko neex mu def bu leen doyee ab sëriñ nag loolu daa mat yaakaar naa man na ne bu fekkee nag da cee war a am xalaat ba doyu la kon nga tëye sa addiya daa war a leer li ñu séq ak moom dafa war a leer man a lijjantiwuma la may joxe addi lu muy néew ko bari xaw ma fu ñu koy def dama yëkkati rek jox ko xaw ma lu mu koy def samay nekku ci ci biir taalibe yi la ba kon nag noonu moo parce que loolu la ñuy jàngal kon nag nañu góorgóorlu bu baax a baax ci loolu nañ ci nañ ci bàyyi xel bu baax a baax yaatal li ngeen di am muy néew ak a bari moom xeebul dara yéemul dara ndax barab bi kat sëriñ bi fàggu na loo xam ne bu tale bu yëpp téyewoon seen yëf dinañ nga am dina jag loolu loolu lu leer la waaye nag lu baax dañ ko war a yaatal moo tax ñu bëgg kenn ku ci nekk ki am dërëm mu dugal ci ki am fukk dugal ci ki am nangam gis nga bi ñuy yëkkati di di laajal jumaa ji booba lu ko mën a def kenn ci njaboot gi mën na koo am waaye dañoo bëggoon mu yaatu rek moo taxoon ñu def kon nag loolu di ay kàddu yoo xam ni kàddu soññee la yu may jëmale man sama diggante ak taalibe ñu bàyyi ci xel bu baax a baax bañ cee dugal xalaat ak xel yi yu bari yi ñu xewal léegi am kenn ku ci nekk da ngay bëgg doon dara ci kii bi af mbir yi du mbiri xalaat ak i nangam lu ñu mag ci yoon wi rek lépp loo xam ne ñun ñoo ko mag ci yoon loolu bokkul ci yoon waaw kon nag ñu ngi sant bu baax a baax ñëpp ñu ngi leen sant sëriñ baa ngi ñëpp njaboot gi sëriñ soxna ami la ñuy tàmbalee ba ci ki ci gën ndaw kenn ku ci nekk euh, gis nañu euh, taxawaay yi nga ci am loolu mooy njaboot gi nga xam ne ñoom la bokkal sëriñ bi waaye ñi nga xam ne it ñooy soxna yi nga xam ne moom lañu suñu borom dénk ñu ñëw ci kër gi ñoom it euh, ñoom it ñu ngi kenn ku ci nekk la nga mën fa sa doole toll yaa nga cey góorgóorlu loolu gis na ko ndax kenn ku ci nekk su la neexoon nga toog fa nga toog waaye ñoom ñëpp kenn ku ci nekk da ngay góorgóorlu ngir wane sa pas-pas ci bis bi wane ni li ñu ñor li ñor sëriñ bi mu ngi lay ñor kon loolu it gis nañ ko euh, yàlla nañ suñu borom taxawu ba dafa leen njaboot li ngeen di liggéey te ci yéene suñu borom dafa leen ci njaboot bu barkeel loolu mooy kàddu yi kon daal lépp luñ ci fàtte rek ci sunu matadi la euh, képp kuñ ci fàtte ci sunu matadi la sin naa sëriñ Aliou di sunu bàyyi di sunu lépp euh, sëriñ sëriñ euh, Ahmed Gueye mu ngi fi woon ci bëccëg ñoo ñëpp di sunuy kilifa sëriñ Alaaji ñu ñëpp di sunuy kilifa sëriñ Moussa Alima sëriñ Mor Alima sëriñ moor Asta Gueye sëriñ Omar Gueye ñii ñëpp ñoo bokk benn bopp la kon ñii ñëpp kon di sunu di sunuy kilifa di kilifay sëriñ bi ñoo ñëpp kon ñu ngi amee leen kàddu cant kàddu yu ngërëm ñu ngi ñu ngi jégalu ci guddal gi waaye ñu ngi sant yàlla di di di di santaat ñi nga xam ne ñoo fi nekk te lu ñuy wax ñoo koy jàllale ñu segg ko rek li ci baax ñu jàllale ko yi ci kii ñu xam ne rek loolu daa dafa ci ci mottali matadi doomu aadama la la nekk wa assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatu